ñaar Korint saar juróom ñeent ci mbirum ndëmbal loolu jëm ci gaay yàlla yi matul ma leen di bindaat ndaxte xam naa seen yéene ju rafet te maa ngi ciy damu ci kanamu waa Masedowan naan leen daaw fekk naa waa Akayi jekk te seen cawarte xamb nañu bari ci ñoom maa ngi yónni nag mbokk yooyu ngir damu gi nu doon damu ci yéen ci mbir mii bañ a neen te ngeen jekk ni ma ko waxe woon dañoo bañ rekk waa maseduwaan ñiy ànd ak man fekk jekkaguleen te kon kóolute googu nu am ci yéen dina nekk sunu gàcce waxaalewuma nag seen bos moo tax ma xalaat ne li gën mooy yónni mbokk yooyu ñu jiituma ci yéen toppatoo mbiri ndimbal lu yaatu loolu ngeen dige woon loolu di may gu tàlli te bañ a nekk yëfi nay te lii moo am ku ji tuuti góob tuuti ku ji lu bari góob lu bari kon na ku nekk joxe ni mu ko nase ci xolam te bañ cee am rëccu walla sañul bañ ndaxte kiy joxe ak mbég moo neex borom bi te yàlla mën na leen a woomal ci bépp yiwam ba ci fépp ak ci lépp ngeen faj seen soxla yépp te sakkanle it ngir bépp jëf bu baax moom la mbind mi wax ne tabe na ba may baadoole yi njubteem day sax ba faaw yàlla miy jox baykat bi jiwu ak nit ab dund dina leen jox jiwu wu ne gàññ te sakkanal li seen njub meññ noonu dingeen woomle ci lépp ba yewen ci bépp anam ba tax ñu bari gërëm yàlla ndax li ngeen maye jaalale ko ci nun ndaxte njaamu gi ngeen di jaamu yemul rekk ci faj soxlaay gaay yàlla yi waaye dina taxit ngërëmu ñu bari baawaan jëm ci yàlla ci li ngeen firndeel seen mbëggeel ci joxe ndimbal lii dinañu màggal yàlla ndaxte wone ngeen ni ngeen déggale xabaar bu baax bu kirist bi ak ni ngeen yéwéne ci seen ndimbal jëme ci ñoom ak ñépp rax ca dolli dinañu sant yàlla ak xol bu fees ak cofeel ci yéen ndax yiwu mag yàlla def ci yéen jërëjëfati yow yàlla ndax sa may googu weesu dayoo